Heavy Bass.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 mu yab ko ci mbuus sànni ko ci ay tabax yu yeggul <laughs> pëtalaw cee soxor ba fi mu ne police teg na ko loxo ci lu tubaab naan infanticide wolof nan ko jur doom ba noppi faat ko <laughs> ma ne ko bari na ci dëkk bi nag liir bi mu faat nag ndeysaan nee ñu jigéen la woon ci ab tabax bu yeggul lañ ko sànni bi ñu informé police nag talaata ci treize heures ci booru vingt et une heures police yi dajale nañu suffisamment d'éléments ak ay tegtal yoo xam ne nii jox na leen ko ñu war a daw ndaw si di am ñaas <laughs> ma ne ko dañoo tëj nag ndaw si nag bi ñu ko jàppee teg ko loxo ba koy interroger ca police centrale bu Thiès ndaw si dafa avoué nee na ginnaaw bi mu wasine dafa xoj xale bi ci biir néegam ba mu faatu mu dugal ko ci mbuus sànni ko ci tabax bu yeggul këy ndaw si nag teg ci ne lu tax mu def lu ni mel dafa doon génn ak copain mère amem ñoom ñaar nag seen génn googu ci suuf lañ ko doon defee mooy li doxaankat yu mag yi di wax jël ma ci suuf naka noonu nag ñoom ñaar ñu nekk ci suuf nekk ca nekkal ko ca ba ëmb am ci ndaw si ne ginnaaw bi mu ëmbee ci la décidé ne bu joom ji juddoo mu faat ko xam naa boo waxee ñu naan daw gàcce réew mi ma ne nag xam nga Sénégal moo neex yow da ngay xëy def sa lu ne weŋ bëgganteeg sam ponkal ngeen na ca nekkal ko ci ba dara xew doom juddu yoonam nekku ci deful waxul yegul tinul nga faat ko ay waay yow mal xiyam dina metti te nag li ma ci gën a metti Sénégal boo xefee naa fi xii jóg nan suñ fi daganaloon avortement kon lii du am te xam ne rey égal rey rey moom rey rekk la rey ci avortement ak xot mu dee benn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 fukki aat dóor ba muy gisi buy ndax waa ji ñu naan mbir moomu nag nee ñu ni la demee es bobaan mi nga xam ne moo yàgg génn ak waa ji ñu naan âge génn nañ génn gu yàgg seen relation boobu sax dem na ba ñaari doom juddu ci naka noonu ci la a jàllo moom it tàmbalee génn ak waa ji bi ko es bobaan ci la interpellé a jàllo daa ko koy laaj a ne day génn ak waa ji naan âge en dox seen diggante ay saagante nday jub ci bali xew-xew es buban ak o buban rakk ji jàpp a jàlloo dóor ba muy bëgg a dee a ñàkk fayda ndax góor ba mbir mi mujjee teeri ca loxoy yoon ba ñoom ñépp ñu tëj leen ñaari atu kaso yoo xam ne duñ ko tëdd <laughs> réew mi nag damaa yaakaar ne mooy loolu moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca caaroy jumaa ja romb na doy waar ñaari xale góor ñoo fa jàppante ba benn xale bi jël paaka jam ko morom ji mu jaare fa ñàkk bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi ki ñu faat mu ngi wuyoo ci turu Babacar ki ko faat di wuyoo ci turu Jamil ñoom ñaar daal dañoo jàppante ki nga xam ne ni moo di Jamil dem ci boutique ba jënd fa ñaari paaka ñëw ut si ki nga xam ni mooy Babacar benn waaye ko ko dal di nangu benn paaka bi yaakaar ne Jamil benn paaka la yoroon Jamil ci la ñëwee fekk Babacar taxaw yaayam di wax ak moom mu bett ko ginnaaw jam ko paaka ñaari yoon Babacar ci kanamu yaayam la daanoo bi ñu ko jëlee ci saa si yóbbu ko hôpital bu camp ba bi ñu toogee as tuut la Babacar jaar ñàkk ba kanam ma ne leen nag Sénégal mooy lii léegi Sénégal njoxor njaay xeex arme moo tax crime yi bëri réew mi dama yaakaar dañ ko war a ndëppal mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz